mu ne ñoom ñoom ñi nga xam ne ñooy njaboot Sëriñ Tuubaa gi ak sëriñ si nañ xam li leen booleeg taalibe yi. weesuut Pastef weesuut Pastef. kenn gëmuñu ci. mu xam naa kenn gëmu leen ci moom loolu moom mu ne amu ci kenn koo xam ne jébbalu nga ci nit. ne mën na laa ràmm boo kon nag yow mii bi. koo xam ne daanaka ab jaam la. boo ko bëggee jàpp koo xam ne daanaka ab jaam nga ko jàppee. loolu njuumte la njuumte mënu ko gën a rëy. andeewuñu ñoom noonu. waruñoo àndeeg ñoom noonu. ndax képp ku jëbbu Sëñ Tuubaa. képp ku jëbbu Sëñ Tuubaa. sa coobee rek nga ko defee. sa coobee rek nga ko defee. Cheikh Ibra kat. Cheikh Ibra kat. bi muy wane ni ñu war a toppi sëñ bi. bi muy wane bi muy wane ni ñu war a toppi sëñ bi. Sëñ Tuubaa Mustafa xëy na toogal leen ci suuf. mu ne Sëñ Tuubaa Mustafa kenn toogal ci suuf. Moustapha kenn déedéet ma su jootal. Moustapha kenn déedéet ma su jootal. Moustapha kenn déedéet ma jox seen alal. Moustapha kenn déedéet ma jox seen alal. Cheikh bi daa ko fi indi. kon nag loolu. kon loolu. nañ xam ne coobare la. loolu coobare la. ak taalibe du njaam. ak taalibe du njaam. du du du du nguur itam. sëriñ bi itam nekku ci nguur. du doole itam. du doole itam. ndax li tax mooy. ndax li tax mooy. boo demee ci tubaab ci archive boo demee ci archive da ngay bi bi ñuy xeex yoon wi. bi ñuy xeex yoon wi. ak wax niñ ko war a baare ba du màgg. ak wax niñ ko war a baare ba du màgg. ndax boo yoon ni muy jaaxal na ndax boo yoon dox bi jaaxal na leen. ku dem ci ko mu ne ku dem ci archive yi nga ko fa fekk. ci biir wax ja ci biir wax da ngay dégg ñu naan murid gi daal niñ ko gisee. da ngay dégg ñu naan murid gi niñ ko gisee. daa mel ni ak nguur gu dellusiwaat la. daa mel ni nguur gu dellusiwaat. waaye nag wërte naa nguur. waaye nag wërte naa nguur. ndax buur yi ndax buur ñoom. dañ daan forcer nit ñi. dañ daan forcer nit ñi. ñii nag ñoom ñoo ko defal seen coobare yi bopp. kon nag ñun taalibe yi itam. kon ñun taalibe yi. dañuy xam ne. nañuy xam ne. nit ku ne. nit ku ne. responsabilité boppam la. responsabilité boppam la. ku amatul taalibe yi. ku amatul taalibe. mbirum boppam la. mbirum boppam la. waaye jërul forcé. déedéet jërul forcé. afa anta tukrihu naas. waaw. xataa yakunu mu'minin. Mm-hmm. suñ borom nee na. suñ borom nee na. ngëm kenn du ci forcé kenn. mu ne ngëm kenn du ci forcé kenn. kon yoon wi nañ xam ne. kon yooyu nañ xam ne. du doole du doole. du doole état du doole état. du doole nguur du doole nguur. li ñu am nag moo ëpp doole nguur ak état. li ñu am nag nun moo ëpp doole nguur ak état. ndax du fi jóg du fi jóg ba mukk. te kenn mënu ko yàq. te kenn mënu ko yàq. dara mënu ko mab. dara mënu ko mab. la sëñ Abdoulaye waxoon Abdou Diouf ne ko. la sëñ Abdoulaye waxoon Abdou Diouf ne ko. sa doole ji sa doole ji. dafa sondax ci doole sëñ Tuubaa ji. dafa sondax ci doole sëñ Tuubaa ji. ndax boo boo boo soxla woon junni nit. boo soxla woon junni nit. ma soxla junni nit. ma soxla junni nit. man nga ko am ni ma ko amee. man nga ko am ni ma ko amee. waaye aminu du bokk. waaye aminu du bokk. ndax yow boo soxla woon junni nit. yow boo soxla woon junni nit. da nga leen jox paas. da leen jox paas. da nga leen jox lu ñuy lekk. da nga leen lekk. te buñ dikkee da nga leen wax li nga leen doyee. te buñ dikkee tam da nga wax li nga leen doyee de. man nag bu ma doon ko yaakaar Sëriñ Tuubaa na ñëw. bu ma doon ko yaakaar Sëriñ Tuubaa kuy ñëw kuy ñëw. sa yaa indi sa bopp. la ngay lekk yaa ba ngay boo dikkee la ngay lekk yaa koy indaale. te boo dikkee da ma nuyoo dara. boo dikkee da nga ma nuyoo dara. loolu du fi du fi jóg. kon nag leer bu ñu bëggee lu ëpp loolu nag xamu ko. am. waaw sëñ bi daana wax ne. sëñ bi daana wax ne. ginaar guñ la may. ginaar guñ la may. genn ginaar guñ la may. président France sax mënu ko am. président France sax mënu ko am. bu lekkee ginaar moo ko jënd. bu lekkee ginaar moo ko jënd. loolu nguur ga bala nguur ko jox ko ko rek. moo ko jënd waaw. loolu mën naa xam. mu ne nit mën naa def jëf ju waaye mu gendiku ko rek. waaye mu gendiku ko. jàpp ne jëf na. jàpp na jëf na. lépp nekkaat sero. lépp nekkaat sero. mu ne kon jëf li ci ëpp solo. mooy sellal gi mooy sellal gi. Mhm. moo ñu gën jege suñ buumi xol. mu ne waaye nag suñ borom. moo nu gën a jege suñ buumi xol. kon la nga fas xam na ko. mu ne sëñ bi nee na ku ne yàlla xam na li nga fas ci sa xol. kon la nga fas mu ne li nga fas moom lay gis. kon jëf ji li muy rëy rëy. mu ne jëf li muy rëy rëy. mu ne passé bi rek ci am solo. mu ne tax mu jottali ko. Mm. mu ne lii nga lii nga def ñëpp dañ ko war a gis dégg ko. ndax li ma ci jublu. mu ne lim ci jublu nag. mooy ñun itam ñu xam li ñu fi bàyyi. mu ne ñoom ñi nga xam ne ñoom ngeen fekk fii indi fi jëf ji ñu xam leen fi bàyyi. ndax suñu jëmm yi taxut. mu ne xam na ne seen jëmm yi taxut. ndax Touba ak fii ëpp mu ne Touba ak fii kat ëpp na téeméeri kilomètre. sëñ Touba la ñuy sàkku. sëñ Touba la lañ fiy sàkku moom lañ fiy sàkku. yéen itam moom ngeen fi sàkku. yéen moom ngeen fiy sàkku. sëñ Abdoulaye nag daa waxoon ne. mu ne sëñ Abdoulaye daa waxoon ne. Eh, sëriñ bu ñuy joxe addiya. mu ne sëriñ bu ñuy joxe addiya. bu ñuy joxe addiya. bu ñuy jox addiya. te du joxe addiya. te du joxe addiya. mi ngi mel ni. mu ne mi ngi mel ni. ku yor sa waxandew gaal. ku yor sa waxandew gaal. fóot ay yéreem ba mu set. fóot ay yéreem ba mu set. jox la ne dencal ma. mu jox la ne dencal ma. gi fees. ñu ne def ko nag ba gaal ga fees rek. nga yaakaar ne mu ne yow nga defee ne am nga yére. bu ñu àggee ci bisub daje ba. mu ne bu ñu ci bisub daje ba. ku ne na ñëw jox ma sama yére. ku jox ma sama yére. ngay joxe ngay joxe. ba mu jeex na ba mu jeex tàkk. bu boobaa bu fekkutoon nga denc fa sa yére. mu ne yow boobaa fekkoon na yow dencoo fa sa benn yére. doo am loo mën a a ngi dem ca mbooloo. mu ne doo a dem ca mbooloo ma. kon noonu rek la mu ne noonu rek la demee. moo tax mas naa dégg suñu son bu wax ne. mu ne mas naa dégg sëriñ son bu wax ne. Eh, sëriñ Massamba Diop Sam. sëriñ Massamba Diop Sam. danaa def lu agsi rek mu dajale andi sëñ bi. danaan def ci moom mu dajale yóbbu ci sëñ bi bi sëñ bi ne ko Masamba. mu ne bi sëñ bi ne ko Masamba. gis naa ni ngay def de. gis naa ni ngay def de. waaye baax ak Dame Sane la. mu ne waaye mbaa xam ne ak Dame la. Dame Sane ngeen ko yéen ma. Dame Sane mooy butéel boobu nga xam biir bi dafa te buñ dee ma cee kaw mu am saañu dénk. mu ne ko Konde Mbakke. mu ne ko Konde Mbakke. mu ne moom sëñ Masamba mu ne ko Konde Mbakke. ñu fas mu ne ñun tam ñu fas yéene doon ay lantinoor. mu ne ko de képp ku ci def. mu ne loolu de képp ku ko ci def. buñ demee ba fa nga xam ne kenn mënu fa amuk diw. mu ne buñ demee ba nga xam ne foofa nga xam ne moom kenn mënu fa amuk diw. danaa yëkkati ma joxoon ne la nga ma dénkoon mu ne moom yow moomu danaa yëkkati la nga ma joxoon ne la nga ma dénkoon a ngi nii. waaw sëñ Tuubaa moom soxla wut alal. mu ne sëñ Tuubaa soxla wut alal. musu ko musu koo laaj. musu koo laaj. lu dul ci jumaay Tuubaa lu dul jumaay Tuubaa ji. te loolu dana suñ borom te loolu dafa wax ne suñ borom ko digal. ne ko dee ko laaj. ne ko dee ko laaj. waxtu sàngam waxtu sàngam. ba waxtu sàngam ba am am na at moo mu ci àggee. mu ne am na at moo xam ne ba mu ca àggee. dana ma suñu borom digal na may dajale sama jumaa ji ci njaareem. mu ne daf ne suñu borom digal na may dajale sama jumaa ji ci njaareem. nee na may li ñu fi indi naa ci jëfandikoo nangam. mu ne nee na ko itam lii ñu fi indi kat naa ci jëfandikoo nangam. waaye li ci lépp moom lépp moom ba ci yàgg mu ne. ba ci yàgg mu ne. nee bu ma nangooti sama loxo dara. mu ne sa loxo dara. mu ne ña xam kër sëñ ba nag mu ne loolu la ko déggee moom xaadimu rasul mu ne dañoo mujj ay booli xaalis lay doon waaye sëñ bi du ko jëfandikoo te du ko nangoo laal biir kër gi di waa barsàq mu ne ñooñu kat nga xam ne mooy waa këram ñi ci biir ñu tuddee leen barsàq daanañ tumuranke ba du ñu am lu lekk daanañ àgg foofu kon Serigne Touba soxlawul alal ji dafa bëgg dimbale nit ñi mu ne Serigne Saliou mas naa dégg mu wax ne sëñ bi daan def léeg-léeg bu dara bëree ci kër gi. mu ne sëñ bi daan def léeg-léeg bu dara bëree ci kër gi. mu ne xanaa daa manqué ci réew mi. mu ne xanaa daa manqué ci réew mi. ndax boobu nit ñi luñ jàpp ne mi ngi bëgg a manqué. luñ jàpp ne mi ngi ma nga manqué rek. dañ koy wëri dañ koy wëri. dajale ko indi ko mu ne Cheikh Issa daana ko def bu baax a baax. mu ne Cheikh nag moom jëlale na ko moom. ak mag ña fa nekkoon ñëpp. mu ne mag ñooña nga xam ne dañoo nekkoon sëñ bi kenn ku ci ne ci ñoom luñ la mës a indil la nga gën a bëgg la nga gën a bëgg jox nga ko sëñ Tuubaa ba noppi nag toog moo tax sëñ Tuubaa mu ne loolu nag moo tax sëñ Tuubaa faye leen lii mu leen faye ndax eh, sëñ mu ne ndax sëriñ Modou Aminta Fall mas naa dégg mu wax ma ànd fa kilifa mu ne mas naa mas naa dégg mu wax fa àndee ak kilifa sama génn kilifa mu ne génn kilifa muy sëriñ Moussa moom sëñ Abdou Khadir mu wax ko wax ju solo mu wax ko wax ju am solo mu ne ko ndigal mu ne ko ndigal lii am picc moo mu ne lii dàq am picc mooy dàq ndigal mu ne mu ne ñu wax lii nga ne ah bu réew picc yee naaw mooy dàq ndigal loolooy dàq ndigal daana ko sëñ Tuubaa lim ñu fayee mu ne waaye nag sëñ Tuubaa lim nu fayee daa ëpp lu ñu ko jëfal daa lu ñu ko jëfal ne ko ndax maam yi kenn ku ci ne mu ne ndax suñ maam yi kenn ku ci sa jënn jëmm sa jënn jëmm jox ko sëñ Tuubaa sa jënn jëmm rek nga jëloon jox ko sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa fay junni junni nit mu ne sëñ nag jël junni junni la ko kon sëñ Tuubaa rek mën a fay sëñ Tuubaa a fay jaa bil hasanati falahu ashru amsaliha mu ne moom jaa bi sayyiati borom ku ko defal benn mu ne suñu borom ku ko defal benn mu fay la mu fay la fukk boo ko defalee lu baaxut boo ko defalee lu baaxut mu delloo la ko mu delloo la ko moom sëñ yàlla mu amul lu bon mu ne na kon ñoom itam mu ne ñoom ñii nga xam ne sëñ Tuubaa rek ngeen di xentu ci moom mu ne ñoom it leen war mooy góorgóorlu te xam na nit ñi kat du ñuy dof ànd nañu ak seenum xel. ànd nañu ak xel. toppeewuñu dara lu may sëñ Touba. toppeewuñu dara lu sëñ Touba. ni ma ko waxee woon léegi rek. mu ne ni ko waxee léegi rek. am na si ñoo xam ne. am na si ñoo xam ne. ñooñu dàq julli fuuf. ñooñu dàq julli fuuf. dàq ñoo jaamu yàlla fuuf. dàq ñoo jaamu yàlla fuuf. dàq ñoo woor. dàq ñoo gën a gën a nangoo joxe. dàq ñu gën noon nangoo joxe. kon ñun itam. kon ñun itam. loolu war nañoo dolli jom de mu ne sëñ sëñ Tuubaa kat daa wax sëñ Daaru Asan Njaay ak sëñ ma Lemin Gay ne ñoom ñaar ñii kuñ topp sa ginnaaw suñ borom lay jàjji daal di wax na nag boo yeexee ñu romb la de kon nag kon ku bokk sëriñ bi li leen war ñoom na seen kilifa fi nekkoon daan def rek di xoolee taalib yi sëñ Tuubaa di xoolee taalib yi sëñ Tuubaa xam na ne taalibe yi ñooy àlli sëñ Touba ñoo leen war a sàmm daanañ sonn lool ba àgg ci duñu mën a demate ba àgg ci dootuñu mën a dem waaye bu ñu yëglee nit waaye bu ñu yëglee nit duñ ko sañ ñàkk ko ñàkk suñ ko ñàkk sañ a gis moo tax léeg ci coono mu ne loolu moom mii looloo tax ni ñu di ko yërëm ci coono bi waaye dama fekk ba tàyyi loolu mu ne dafa fekk nag loolu ba tàyyi ci ñoom te ñoom ñoo gën jege sëñ Touba fuufi ndolleen gën ñoo jege sëriñ bi ci lépp gën leen a jege sëriñ bi ci lépp gën leen a ragal yàlla ma gis te kat moom gis na ñoom ñoo ñeen nañ ragal woon nit ñi ci sëñ bi sëñ Abdou Lahad mbaaram moom mu defoon ci biir këram ñaari mbaar la woon ñaari yu mag a mag a mag ña nga fa ba léegi am na ci moo xam ne am na ci moo xam ne ay ay ay handicap mu ne am na ci moo xam ne bu ci mosaan dugg ay handicap ak ñu mënta dox ak ñu tumuranke ñoo xam ne xamuñu fuñ jëm ñoom rek ñoo fa daan nekk nee na ñu bëree bëri na xamuñu lu ñu jublu woon ci loolu mu ne lam ci jublu woon a na mu ne xamutoon na nit ña fa daje woon nga xam ne ñii wéruñu ñii gisuñu ndax li tax nit ñi di leen xeeb mu ne xamul ndax moom moom jëm mu sëñ a Lahad moom ndax sëñ Tuubaa moo koy xool ci nit ñi ñu mel dañ leen a xeeb ba woyofal leen mu ne mooy abasa wata wala muy gumba ga waaw an jaahul ahma daan def buy bëgg a génn buy bëgg bu laajtee ne kan ak kan fi ne kan ñoo fi ne xam nga ni nit ñi baaxoo ba nëgëni mu ne mooy ñooñee nga xam ne mag ña ña fa nekkoon ña nekkoon ñoom nañ baaxoon ba nëgëni mooy li ba léegi mu ne moo fi ba léegi jeexul boo laajee ku fi ne dañuy tànn borom daraja yi tànn borom daraja yi ak borom alal yi daal la diw ak diw dee nga fa ñooñu moom a ñoom duñ leen faale ah. bu ne laaj na ñooñu rek fa nekk mu ne muñ ne ko ah ña def xanaa mooy mbooloo ah, mi siyaare si rek mu ne cey mu ne yéen xamu leen sëñ Tuubaa ñooñu ngeen di woyfal borom ñaar dërëm yeeg juróom yi ak ginaar yi mu ne ñooñu de ñoo ma gën a ñor man ndax ñooñu ñoom pësëf rek leen fi indi pësëfu kese moo ñu yëkkati mu ne loolu tax mu di ko faral di fàttali ku ko déggutoo ni dégg ko te xam ko te bokk sëñ bi di ko bàyyi xel Serigne Saliou nee toog naa moom du ko fàtt ci mujj gi mu ne mooy mbaar moomu ci bunt bi nga xam ne moom lañ defoon ca biir te ñu defoon ci lu mel ni ay barrière ci mujj gi bisub àllarba ca takkusaan nee na boo sonn lool moom moom rek noonu ci biir mu wax Saliou Diakhaté ne ko indil ko café ñu ubbi bunt ba nag far ay nit dugg nit ña ne waaye mënuñu wax ci sëñ bi Ah, mu ne mu ne mu ne ko dañoo nit ñi de wax dëgg yàlla am dañoo waroon dem ba suba ci alxames ndax tey de xaw na maa sonn lool. waaye nit ñi toog rek. waaye nit toog. mu ne ba jàgg sañ bi na tekk. daal ne daal na cey salaaw de nit ñi de. mu ne damay toog ba xaaju guddi ma leen di xalaat. ndax leen sëñ Tuubaa jaral. ndax leen sëñ Tuubaa jaral. moo tax ñeen waruñoo gën a gore. nee na ñooña nag ñoom waruñu leen a gën a gore sëñ Saliou mu ne mu ne ñooñu ñii waruñu noo gën a gore ñii wut sëñ Tuubaa ci ñun waruñu noo gën a gore dal na Saal bàyyil ñëpp ñu ñëw kon mu ne loolu ku ko dund fi nga nekk nga jàpp pal mu ne fi nga nekk ku dundul loola fi nga nekk waroo ko jàppee ak pal ndax ñoom jàpp ko ndax ñooñu ñoom loolu nga ko jàppee ñoom jàppuñu ko ko woon de. ndax du nguur du nguur dak te loolu mu ne kat seen kilifa ga seen waajur wa seen sëriñ ba ñoom ñooñee sëñ Tuubaa tere na ko ba tey bu leen dooni buur ne yéen kat bu leen dooni buur waaye taalibe yi ñoom it buñ doon ay dak mu ne sëñ Moudou Moussa yëg leen yëg ngeen ba mu ko yëgalee ba mu ko yebalee ci sëñ Séré Lo sëñ Tuubaa ko fa yebaloon ba mu demee sëñ Siré ne Cheikh Moustapha toogal ci kaw. mu ne sëñ Siré ne sëñ Moustapha toogal ci si sëñ Moustapha nanguwut. sëñ mu wax ñu bokk toog suuf. mu wax wax mu nangul ñu bokk toog suuf. li taxoon sëñ bi mu ne ko li taxoon sëñ bi yebal la fi kat mokk na. ndax mooy. mooy. mais bu ngeen doonee ay sëriñ. su ngeen doonee ay sëriñ. ñu doon taalibe lépp baax lépp baax. waaye bu ngeen bëggee doon buur. mu ne bu ngeen bëggee buur. ñu doon i dàq. ñu i dàq lépp lépp yàqu. mu ne loolu day mat naa bàyyi xel mu ne ñoom ñoom ñi ne ñooy njabootu Sëriñ Tuubaa ak sëriñ si nañ xam leen booleeg taalibe yi weesuut kenn gëmuñu ci xam naa kenn gëmu leen ci nee na Sëriñ na mu ne amu ci kenn koo xam ne jëblu nga ci nit jàpp ne mën na laa ram boo kon yow mi sëriñ bi koo xam ne daanaka ab jaam boo ko bëggee jàpp waaye daanaka ab jaam nga ko jàppee. loolu njuumte la njuumte mënu ko gën a rëy. andeewuñu ak ñoom noonu. waruñoo àndeek ñoom noonu. ndax képp ku jëbbu Sëñ Tuubaa. képp ku jëbbu Sëñ Tuubaa. sa coobe rek nga ko defee. sa coobe rek nga ko defee. Cheikh Ibra kat. Cheikh Ibra bi muy wane ni ñu war a toppi sëñ bi. bi muy wane bi muy ni ñu war a toppi sëñ bi. Sëñ Tuubaa Moustapha xëy na toogal leen suuf. mu ne Sëñ Tuubaa Moustapha kenn toogal ci suuf. Moustapha kenn déedéet ma su jootal. Moustapha kenn déedéet ma su jootal. kenn déedéet ma jox seen alal. Moustapha kenn déedéet ma jox seen ko fi indi. kon nag loolu. kon loolu. nañ xam ne coobare la. loolu coobare la. ak taalibe du njaam. ak taalibe du njaam. du du nguur itam. sëriñ bi itam nekku ci nguur. du doole itam. du doole itam. ndax li tax mooy. ndax li tax mooy. boo demee ci tubaab yi ci archive boo demee ci archive da ngay eh, bi ñuy xeex yoon wi. bi ñuy xeex yoon wi. wax ni ko war a baare ba du màgg. ak wax niñ ko war a baaree ba du màgg. ndax booba yoon ni muy jugee jaaxal na leen. ndax booba yoon dox bi jaaxal na leen. ku dem ci archive fekk ko fa. mu ne ku dem ci archive da nga ko fa fekk. ci biir wax ja ca biir wax ja. da ngay dégg ñu naan murid gi daal ni ñu ko gisee. da ngay dégg ñu naan murid gi ni ñu ko gisee. daa mel ni ak nguur gu dellusiwaat. daa mel ni nguur gu dellusiwaat. waaye nag wóote naa nguur. waaye nag wóote naa nguur. ndax buur yi moom. ndax buur yi ñoom. dañ daan forcer nit ñi. dañ daan forcer nit ñi. ñii nag ñoom ñoo ko defal seen coobare yi bopp. kon nag ñun taalibe yi itam. kon ñun taalibe yi. nañu xam ne. nañuy xam ne. nit ku ne. nit ku ne. responsabilité boppam la. responsabilité boppam la. ku amatul taalibe yi. ku amatul taalibe. mbirum boppam la. mbirum boppam la. waaye jërul forcé. déedéet jërul forcé. afa anta tukrihu naas. waaw. xataa yakuunu mu'miniin. Hmm. suñ borom nee na. suñ nee na. ngëm kenn du ci forcé kenn. mu ne ngëm kenn du ci forcé kenn. kon yoon wi nañ xam ne. kon yooyu nañ xam ne. du doole du doole. du doole état du doole état. du doole nguur du doole nguur. li ñu am nag moo doole nguur li ñu am nag nun moo ëpp doole nguur ak état. du fi jóg du fi jóg ba mukk. ta kenn mënu ko yàq. te kenn mënu ko yàq. dara mënu ko mab. dara mënu ko mab. la sëñ Abdoulaye waxoon Abdou Diouf ne ko. la sëñ Abdoulaye waxoon Abdou Diouf ne ko. sa doole ji sa doole ji. dafa sondax ci doole sëñ Tuubaa ji. dafa sondax ci doole sëñ Tuubaa ji. ndax boo boo boo soxla woon boo soxla woon junni nit. ma soxla junni nit. ma soxla junni nit. man nga ko am ni ma ko amee. man nga koo am ni ma ko amee. waaye amin du bokk. waaye amin du bokk. ndax yow boo soxla woon junniy nit. yow woon junniy nit. da leen jox paas. da leen jox jox lu ñuy lekk. da leen ñuy lekk. te buñ dikkee da leen wax li nga leen doyee. te buñ tam da nga leen wax li nga leen doyee de. man nag bu ma doon ko yaakaar suñu tubaab na ñëw. bu ma doon ko yaakaar suñu tubaab na ñëw. kuy ñëw kuy ñëw. yaa indi sa bopp yaa sa bopp. bu la ngay lekk yaa koy indaale. ba ngay boo dikkee la lekk yaa koy indaale. te boo dikkee da ma nuyoo dara. boo dikkee da nga ma nuyoo dara. loolu du fi jóg. kon nag le bu ñu bëggee lu ëpp loolu nag xamu bu am ah, sëñ bi daana wax ne <laughs> sëñ daana wax ne ginaar guñ la may ginaar guñ la may genn ginaar guñ la may président France sax mënu ko am président France sax mënu ko am bu lekkee ginaar moo ko jënd bu lekkee ginaar moo ko jënd loolu nguur ga bala nguur ko jox ko ko ah, moo ko jënd waaw loolu mat naa xam jërëjëf Mbacke sëñ maa ngi daana wax ne suuf suñu liggéey addi di ko jox sëñ Touba suuf sa ci barke lay dëkk nee na suuf sa du gàntu mukk fépp ñu liggéey di ko sëñ Touba du ku ne la nga yor sëñ tubaa ca dugg bu ci sëñ tubaa génne dootoo doon dara nan gëm sëñ tubaa te topp ko ñii fi nekk di ay setit nag mënatul ñoo gis doomi sëñ tubaa loolu tubaa nangam nangam loolu waxi caaxaan rek ñoom sun bàyyi dañ sun maam yi tubaa te ba ñu noppee que sëñ tubaa doomi sëñ tubaa ñoo ñàkk topp sëñ fa dagg rek ay jabbi ku bëgg leen doo ko saay-saay bu nekk fee ca mbedd ma nag di ñu soow naan murid ndax sëriñ si nangam nangam ñooñu ay naafeq lañ duñ leen déglu de duñ leen déglu de nun ay taalibe la ñu doon te duñ ci jóg ba faw lu waaye wax yaa ko wax ca mbedd ma waaye teenoo gëm sëñ Tuubaa teenoo gëm ñii fi nekk nii barke sëñ Tuubaa nit mënu ko nañ bàyyi xel loolu jërëjëf Mbàkke ahmadu muxniyan taala an sina wa kaana li bi kulli shay'in wa sanam ahmadu muxniyan